aleykum eh, mbokk mi na ko mu biir vidéo la waa de doon xeex di nettali xeex bi déglul sawaay génn ma indi góos sawaay rek ma daw jël tànk sawaay reculer tànk bi sànni ko ca ginnaaw ba ma jël mu indi ci kanam bi ma fëggee ko jonu ci ci ci ci wetu xol nii nii foo di dégg sam xo uji ndax damaa dam sama noy gi sinon billaahi dama doon fat faatu foofu ma ne na kii affaire kaane la may jaay xaaral ma. saaga baaxul de saaga baaxul gars yi saaga gis nga bu ma bay rek bloqué sama loxo bi rek toj ko sama loxo bi aju ci kaw léegi sama loxo bi tuuti lay laal faar barki Serigne Bamba Mbacke pour peñam bi mutak, ay mu tàkk ay mu tàkk te benn côté moom nag mu ngi dóor maa ngi fay mais moom benn côté la xam a bu fekkoon daf koo teggi côté eh, vidéo bi bul abonné nga nga merci te parfois tamit mën ngaa dugg si loo xamul nag de kenn xamul moytul